am rew du mom bopam fek la muy dundee bayalu ko Sénégal nak lu upp ci li ñuy dund rek dañ koy jéggaani mo xam lu mu mën doon dañ koy jéggaani té lolé nak bu féké nak lool rek ci lañu bëgg sukkandiku ngir wañi dund gu cher gi dana jafé lool ci gouvernement bu mu doon lutax Macky Sall mi fi nekkon yokkon ko ak lan mo waral mu yokko lolu ab laaj la bo premier ministre Ousmane Sonko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 ku la gën a dépendre ci bitim réew moo la gën néew capacité loolu nag liggéey la ndax souveraineté kenn du ko atteindre ci benn fan lii moo tax ñu ne bu fekkee ne rëccu dina ci am lenn rek la rëccu mooy yéex gi ñu yéex a jot ci réew mi waa Pastef rawatina premier ministre Ousmane Sonko mi nga xamante ne ay pexe la Macky Sall laloon ànd koog waa Benno Bokk Yàqal Sénégal ba tey jii Bassirou Diomaye Diakhar Faye doon président du Sénégal ku leen waxoon ne loolee dana am moom Macky Sall du ko gëm waaye ku ko waxoon kenn koo xamante ne da ngay fanaan ci Sénégal rawatina ñi nga xamante ne dañ doon xeex lu ñu mën di def ngir usmaan Sonko ak partie bii di Pastef bañ a accéder au pouvoir duñ ko gëm. lu dul ñi gëmoon projet bi di ci xeex ñu tëj leen ci ñi ñu rey leen ci waaye ñiy exilé waaye ñeneen ñi ci des amatuñu kàddu bu ñu ci fenn ci Sénégal ñooñu kese ñoo gëmoon projet bi. ma jàpp ne nag wàññi dund ak yokk dund bi Ousmane Sonko ci boppam dana ci taxaw ngir nag fa mu ko fekk mooy Macky Sall ci boppam ak ñi fi nekkoon ay milliards yu bari lañ jël dugal ko seen compte. fexe rek ba sàcc alalul réew mi fexe nag ba ñoom kenn ku ci nekk doon multimilliardaire loolee nag muy alal ju bari jooju bu fekkoon ne dugal nañ ko ci dund gi kon ba tey dund bi wàññeeku na souveraineté alimentaire rek moo nu ci mën a génnee